yaa ne mbër ak jéeg ak fas ku la juróom nga xam fu ñuy bañee. waaw salaamaaleykum Abu. waaw. dinaa la ziar naa la. dëgg la. ñaanal di ñaanal Sénégal yëpp jaamu. ndeysaan. waaw waaw mais Abu. waaw combat bi soxla nañ ko trop. mais combat buy wax a ngi nii. léegi tudd Pambaay. léegi tudd Pambaay bi suuf na. combat buy wax a ngi Abu. lamb ar Abu combat buy wax a ngi mais Aziz Bambaye bu ma juumul gëj na si arène bi. waaw gëj na si arène bi. tey day xool passement am. waaw dina jàll du jàll. tey la ñuy xool Serigne Thiam lu muy indi. wala lay naale. la. kon ah, sa waa cokkaas na benn daan seet. dëgg la sama yaram a ngi waaj a daw amu. ndeysaan. daam cokkaas na benn. moo lamb changé na. maa la wax loolu. gannaaw combat ñu gis ne dañoo am. ndeysaan ñu ngi léewtoo nag bu la moo a bu rëdd ñu si ñoom la des. ndeysaan ma Aziz Ba Baye nga ñëw nag mais daam seen taxawul. daam seen taxawul. daam ne daa daa futteeku mu bàyyi xel. waaw mais nag li ko war. daam seen dem na benn. daam seen xeex la indi. abu daam seen xeex la indi. abu gisoo. abu fii la. ana lamb ja. waaw mais lamb jaa ngi nii abu. ci Elmo. waaw waaw soo bëggee noppalu Elmo da la koy jox. bu mu école bu bees bis bu bees. bu turaat Aziz Pambay nu mu ma xeex bi. mu ñëw non non nu mu ma xeex bi. nu mu ma xeex bi Pambay. bëre bi laa ko gën a nawee. bu ñu jàppante mu jeex maa wax loolu Abu. Abu booy bi da koo bëgg a koos. daam seen Aziz Pambay ba léegi. ah waaw. bëre bu nar a aw yoon la rebus ba moytu ko bëgguma xeex bi Pambay si yow. dóori bi xeex bi baaxul Pape. Pambay ni muy xeexee baaxul Pambay mbapatal ay waay dugal na gauche droite hop hop hop hop Bambey mii yeewu waay kii moytul mu yeewu booy moytul mu yeewu gën a géej a way la hop hop hop hop jàppante ay coup boppe la ay coup kaawo na kaawo na kaawo na kaawo na kaawo na Dame Sène mandi nañ coup hop yoon Serigne Thiaby aw na yoon hop yoon maa la la waaw pop pop yoon Pambay. daa ngi lay la ay waay mi mbojum gerte. pour bañ wax loolu. ay waay da ko fay ensonné. maa wax loolu. ndeysaan yaram daw na. arbitre suuf la na. premier souffle yaa nga nii fi ne nii yaru nañ. loolu tax entraînement wóor. yaru nañ boo doo def dara. fi ne nii koppoon yaay dem. waaw Aziz Bambey a noppalu ñëw. parce que moo amoon temps fort. waaw waaw bu xamee ko si yoon du baax. waaw gox turaat jeexal. dëgg la xaw ma nag xam na looloon déet. mais Aziz Bambey. ndeysaan daam seen sànni na góos mais góos bi daam seen di sànni mën na indi lu ne. gis nga ko parce que fi jaar baax mais gëmu ko. non ñii moom yàgg nañ si loolu boo toppee loolu moom doo fi commentaire. yow def nga ne entraîneur bu toll nii amoo licence. pour yéeg si 16. toogal sa mbët. bu gaañoo nga mën koo njëkk fa. léegi bu gaañoo arbitre baa fay njëkk ak ay suq. waaw loolu daw na yaram waay. daw na yaram daw na. Aziz Ba Mbaye dugg na si garde bi. ñam na ko benn. da koo ñam bu neex la da koy. cameraman bi si ginnaaw nee na maa ngi koy yàqal. maa ngi jégalu sama yaram a tàng. <laughs> maa la wax loolu. laabu la ñam na ko bu neex bàyyi na ko amul fenn. amul fenn. Bambay mi ngi jëlaat foofu loxo la. Jokal loolu laa jeexaat foofu rek doom. maytul daje kuuna Bambay. daam seen maytul Bambay. tànk bi mu changé moo jaaxal daam seen Dame Sène mooy suñu asi papa. hop hop hop hop Abou yaram daw yaram daw na. tey combat diire na. waxoon naa ko de Serge bi. non combat bu eh, loolu. ña ngi lay ñam. ñamante ay waay bii mboojum gerte. ay waay ay waay bii mboojum ay waay Dame Sène moytu la perkeli. Dame Sène moytu la perkeli. Dame Sène na. Dame Sène jàpp na. Dame Sène bëggul xeex bi. ay waay bu sew ba. mam koy bu sew bu loxo bambay jugee mam problème de non daam seen bëree ko jik bu loxo bambay jugee mam problème de daam seen bëree ko jik fii xoolal fii booy bu duggee moom di sonn da koy mboot daam seen mooy jul tey nga sonn daam foofoy fooram daam <laughs> am dara na mooy du bu jeexul bu jàppee foofu métan am nga sens pop pop pop ñoom ñaar am nañ sens am nañ temps fort. woo pop pop lañ leen fay jar na ko. ñëpp awee nañ. daam daa jël beneen paquet. waaw am na ñu daji paquet daa jël beneen paquet. paquet yi mu daji baaxul. bii nga daji première bi temps wóoru. daam daa jël beneen paquet. daama ngay ñëw. daama ngay ñëw daam nag borom jom la. daam borom jom la. daam borom jom jël nay coup mais maîtrisé na ko. amul coach waxal ci loolu. waaw amul coach bu waasi. sànq loolu laay wax xoolal 16 16 buñ dëpp daama nga nii sonn jëlal daam amul ku ko taxaw xam nga ne lii jàpp. mais lii du yoon. non lii du yoon. el moom mën nga toll daam 16. waaw en tant que équipe bu mag boobu. équipe bu toll équipe bu jàmbaar. amuñu coach lii du yoon de. amuñu coach coach ba xaw ma dañ koo aj. xoolal ma daa amul fii ah, dossier yi ñu koy laaj. ay waay coach bii moom mi ngi weer équipe mais Papa Sow lii war na cee wax mais mais moo lanta waaw Papa lan la Papa Sow li muy def lan la Papa kaas na ko ñëwal mais Papa Sow moom buy dem ñu koy forfait buy dem ñu koy forfait baal na ko daa bi da koy baal mais du yoon ndeysaan gàddu gi la gàddu gi waaw c'est que làmb. jël garde bi aj ko kaw. barke alxuraan daa moo ko bu doole moo ko dàq bëre. mais boo wàccee sa garde ay coups yoo xam dafa lay manqué. waaw ñun 2004 lañ defoon rek la dëggee 2. je crois 2 mètres maa ko daa mu dem état yar ak teggi. na am yar ak teggi daa. dëgg la làmb Batika moo wax loolu teel. amul ba muy analyse. avant muy ñëw daam seen dàq premier souffle bi kii kon Asi Pambaay. mais Aziz Bambay nag premier suuf la mu génnagul. waaw non bi mi daan ni mu doon dàqe noonu. te avertissement pour Dame Sène. mooy bi ko mooy bi ko Papa Sow woowee. dëgg la. Papa Sow ko boobu bi ademoon Papa Sow ko ko yombe. waaw tam mais nag da koo yoroon. Dame Sène parce que amuñu ko toog si siège. mais lu toll écurie jàmbar amuñu ko si bu toog siège. looloo tax ñu dagg. mais li c'est pas normal lii lépp lii lépp sa waay ko ko yoon. mais caméraman moo daa war a jiitu. du yoon du yoon. ah maa ngi jégalu waaw waaw Dame Sène ñam na benn Dame Sène ñamaat na benn sa waay daa du courage sa waay. Dame Sène maytul foofu may foofu. Dame Sène maytul loolu. hop hop hop Dame Sène borom jom la. waaw mbay loolu gitaar. yooyu mënoon na ko. mu gitaar la. mooy du judoka baax na <laughs> ay ne ko xamee. bu jeexul. hop hop hop Dame Sène xamoo ki ngay bëreel. daa ñu ne tu la lii daan na si ku dalay manuel wop wop wop wop daam seen bu fekkee daam waaye nag daam seen moo jàpp loxo ba mais bu doon daama tee jàpp da koy manuel dëgg la mais fi na nii bërëb bi tëju na tëju na mais bu taa jeexee nii arrangé wul daam seen de bërëb bi xam nga la moo ko tëj loxo yële ñu jàpp mooy jeexal bërëb bi fekk fee tasul bërëb bi du jeex abu maa la wax loolu daam seen na moo ci Pape Baye léegi bu dee Thiès si daam seen mu gaañu Pape Baye fi mu gàpp mën nem la ci lamb fi fi fi daam seen téye si loxo bi. bu dee bëre bi jeex. waaw bu dee bëre bi jeex. la naxanta ba gisoo gisoo ñoom ñaar ñëpp mbëri côté lañ gisoo <laughs> loolu daanu ko. daam seen li daanu ko daam seen loolu daanu ko. benn bañ du yooyu mbool. daam seen loolu benn bañ du yooyu mbool. daa la wax loolu. ay waay Samba ràccaat na mooy du loolu. daam ne mbor lii neex na mais Pambay ñëwaat na ci lamb waaw. maa la wax loolu Serigne bi am na solo. Elmo Pambay ñëwaat na de. Serigne bi am na solo. Elmo. Pambay booy bi buñ ko defaraatee mu. Pambay Pambay peesul repère la. non tot tot tot. ñëwaat na de. bëree baa dee sa xol bi. ah instant bi bu nekk dafa daan bëree. bëree baa dee sa xol bi. dëgg la. hop hop hop hop hop hop Serigne bi boo yëgoon doo ko laal. kii daan na jëm kay rek. dëgg la xam nga kii par ma de sab bu ma koy lim fi laay fanaan. mais soo ko waxee. du neex a dégg. mais eh, bés bu dem si mais lamb la waaw Bambey ñun dañu koo seetaan bëppat. waaw ba arène. moo kii ku xam Bambey di seetaan xam nga ne luy bettu ñu. dara jaaxal ba xam réer na si moom wala réeru. mais nag daam seen borom jam la ndax sëriñ Diop moo ko nu ngoo encaissé. lépp ci dañ jëloon defee da ko waral. mais mi ngi wane jom mi ngi wane ngor. ndax door na ko fi ay coups yoo xamante ni bu amul woon jom amul ngor du résidence ba egg fii. lii laa soxla si hop hop hop hop sama yaram daw na. kon seen moytuwul ñu maa la wax loolu. na Modou Pamba balaa Pamba di ko bëtt. tey nag Modou Anta moo nekk suñu caméraman moom fépp la mën a. lu la naanal la. waaw hop hop hop hop hop séeréer borom ñàkk rab. koy nuyu. di nuyu borom di nuyu Mati. Miss. ak bébé kon nag ak yaru sëñ Saliou. sama xarit ba. Elmo. waay waay sëñ Ndiir sama waaja borom Pàkku Lambaay ak a ko gore waaye kenn du borom góor gi si maa la loolu Aziz Ba mbaa ngay buuxante moytu loolu daam seen moytul mu ronu la te lay indi fi loolu daam seen moytu loolu maa la loolu ay waay ma ngay rasu daam moytu loolu hop hop hop hop ba coupe timis la boo ko dàqee day ñëwaat maa la loolu daam seen am nga xew ay waay xoolal fa mu ndengañ xoolal fa mu ndengañ bu la bëree neex wala na mu taxawee di noppalu wop wop wop sama yaram daw na ay waay sama yaram daw na boo yaa ngi may yëngal xoolal li muy noppalu te doo sañ a bañ doo sañ a bañ xam ko war daa jàppee loxo bële ba pare teg ses vues te se bu forcé ñu ñu suruxal ko bu forcé ñu dóor ko mboot ñaari pied marki sëriñ wop wop loolu miin la noppalu boobu boo ko bañee yow mbër bi boo forcé buñ la mbootee nga toj wala daa bëgg mu ñëw daa bëgg mu ñëw ay waay Samba daam dem na Ardo. daam li mooy bisaabu daam génn na. bisaabu daam génn na daam bi nga daaj baaxul. non daam am na combat boobu boppam daam boo paree daajil beneen. te mag dem nañ tàll. waaw daam seen a ngi décidé ñoom ñaa ñëpp décidé nañ fii moom ku bu jug baax. daam seen bu taxawaatee rek mu jeex. maa la wax loolu. waaw waaw non daam seen a jeexal. daam daa bëgg a fayu. daam daa bëgg a fayu dóor yi. bu dee si dee am problème. wax loolu. sa waay nga koy arñe rek di ko xoor. maa wax loolu. sa waay da kaa bëgg a remise. na bopp bopp bopp jëlal loolu xale la ngoog. léegi laa naa la jooy naa xale. gars yi ma war a noppi ñu bàyyi ma may wax rek. lambaloog wax loolu. daam seen. waaw bopp bopp daam seen a ngoy ak daam seen fayu na. loolu jeexalu combat daam seen fayu na. jeexalu ko déedéet jeexalu ko. na moytu moytu loolu. na moytu dellu na fa mu newoon. Eh, bu na fa mu newoon génnee loxo bi. dellu na fa mu koy weer dajale. def de. mais dara. bu nekkee si biir mën na koo xar. maa la wax loolu. tam seen li mu def mooy yoon. bu ko defee dara bu somp jotee mu somp loxo yi. non non non non. da koo féete biir. Ah. daam daa war a loxo yi si kaw. bu samp jotee bu ko tuuree fenn benn loxo bi lay samp rek xëcc ko. waaw. Pambay ñu lay bëree Pambay loxo yaa ngi si kaw du jël risque. maa la lool loolu day. xaar ci rek zongale rek la fi mën. wala door tànk. daam seen si ay moytu ronu bi. daam seen moytu lu ma la xool. sa waay jëlatul risque. ma ngi koy tojaat. daam na la moytu day bëree day am. daam loolu la war def. xar boobu baaxul ne naa mbappat ak moom. mën na koo juumloo. mais bu dee xaar kële di def. waaw daam du def dara. waaw waaw lu ma la waxoon. daam seet dellu na génne nañ bisaabu daam seet ay waay daama ngay dem ardo daama de ay waay daam tey moom daam daal joram jom la waaye tey ñoom ñëpp liw nañ waay booy bee bu ma amoon caméra waay waay mu anta xoolal booy bee na mu jommee <laughs> boobu jommi na de sol nga bu ak bu vert waaw ak yére bu jaune wa <laughs> daa jommi ay waay arbitre bi da kaa yërëm. da koo yërëm arbitre suuf la waat nga war a xeexee. waaw maa wax maa la wax loxo ay waay moytul mu fetal la. daa mën a bëri loolu. moytu loolu. daam seen bàyyi loolu nga jàpp di xeex. waaw waaw daam bàyyi loolu. daam bàyyi koo daan foofu. foofay ay daam côté boobu doo foofu. daam doo ko daan côté boobu. hop hop hop daam xamoo ki ngay pop pop pop pop na. pop pop pop pop ba daan na. maa la loolu. waaye kii du nit waxoon naa la ko. tey nga xam ne rëbb njaan ko mënu ko jiite.